Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net.

tolloo ko juróomi téeméeri médecin ak junne doomu aadama yi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu wérgu yaram kuréel gi ëmb agent communautaire yi ci Kaolack ne ñoom kenn gënu leen cee yeey ndax jàng nañ ko te am nañ ci xam-xam comme dañ leen war a bàyyi xel daa ngeen ci dégg Cheikh Tidiane ci état d'urgence bu ñuy ne ànd nañ ci ndax dañoo sonn ñette des na ñoom ànduñ ci ndax baa ngi fay lëmbee ba tey jii daa ngeen ci dégg Cheikh Tidiane Sarr daañu leen demal ci réewum Gambie fekk fa suñu ndaw di Mamadou Lamine Sène yi réew ya ca des nag soxna Ngoné Ndiaye kan lañu fa yebal tàggat yaram sëriñ sàkkan yéeglekaay yi xëy tey ji mbiru El Hadji Seydina Omar Cissé lay doon bi li lépp yemee mbokk yi xabaar yi daal di buur ñu ñaan leen say waaye laata loolu ñu dikk ak ci yàttal gi ak fam gi gannaaw bàkk bi lay doon. Le journal dal leen ak jàmm mbokk yi yéen ñi tàmmul ak 3010 international ngir ay xabaar yu leer te wóor kaddu gi di bàyyeeku fii ci meuble Cheikh Imam Assane Cissé studio Alima Marlo kaddu sekk madame Keneme moo jana ko man ci wàllu xarale gi ba dégg-dégg bi mën di leer nañ leen ko waxee noonu lañ koy dooree ay laaj yu bëri samp jëm ci ndimbal li nguur gi jagleel askan wi bokk na ci ana lan moo tax séddale gi yéex lool ci commune Kaolack ak fan lañ ci toll préfet Ahmed Tidiane Thiaw mooy tontu yooyu lay laaj Cheikh Ababacar Dieng président Macky Sall wax na ko ci discours am am téeméeri commune ci Sénégal yoo xam ne aide alimentaire bi nguur gi jagleel ñenn ci askan wi séddale ga mateyagu fa bi ñu sampalee laaj bi préfet département bu Kaolack lu tax mbir yéexee nii tontub Ahmed Tidiane moo di maanaam daal liggéey bu gudd la woon bu xaw a diis jur na nag léeg-léeg sa bi ak njàmbat waane rek ku xam mbir mi fañ ko jëlee ak fiñ ko indi yi nga xam ne mosuñoo nelaw mosuñoo jayaxu dafa di nag liggéey boo xam ne dafa diis nga war ko def ci sellal war koo def ci jubal ni nga la ko njiitu réew mi bëggee ña nga xam ne ñoom ñoo koy yelloo ñu jox leen ko xale yi war a def examen te ñu delloo leen ci salle de classe yi nag dafa faussé bu baax programme autorité yi doon séddale dund gi ndax ci école yi lañu defoon ay dépôt ngir mu gën a jege askan wi waaye ca mujjantal ko sottiwul Ahmed Tidiane Thiaw préfet bu Kaolack la gënoon a yomb kay mooy ne leen ñoom ñëpp fekk leen ñu ko woon ñu jox leen waaye loolu day indi beneen jafeñ-jafeñ looloo tax ñu doon dajale ñett ñeenti juróomi dëkkuwaay xool benn école boo xam ne danañ fa mën a yóbbu mbir mi woo leen ne leen ñu fare foofu kaay leen jël si Kaolack nag di dëkk bu yaatu 45 la quartier loolu am na koo xam ne li mu quartier man na ko mu gàllax ndikoo mbir mi dem yoonam waaye ñun nag du lu muy gàllax ndikoo woon rek mu doon ay fan ay ay bés mu mat fukki commune nag ñeent yu nekk ci département bu Kaolack ñoom ñëpp séddale nañ seeni ceeb macaroni suukar ak saabu ba mu jeexal waaye ci commune bu Kaolack moom ba tey jile yëf yu bëri amaguñu. fiñ ci toll tey nag fu neex a dégg la maanaam su fekkonte ne nii waroon na noo joxe fukki ndimbal jàpp leen ne juróom-ñett yëpp joxe nañ loolu mooy ayu bés bii ñu dëgmal su jàmm rek dee am su yiw rek dee am bu ñu gisee waatee dañ leen di wax ni joxe nañ lépp ci kattanu suñu borom. fàttali nag gannaaw dund gi jamono ji yeneen kuréel yu bëri ñu ngi xaar ndimbal yéen nguur gi jagleel te góog yoon moom xaalis la gën na fa sëfoor yi ak mbootaay gi ëmb waxkati cosaan yi. lool la koy tonto mooy nan la seddale gi demee ñan ñoo doon bind ña nga jël lu tax nga uh, jël leen ak ban mooy gàllankoor bi ci gën a fës waaye itam lii mu uh, ndimbal gi ci ñaata la toll ba nit ña jàpp ne dafa yéex préfet Ahmed Tidiane Thiaw léegi nag loola ku yaakaar ni dafa yéex da ngaa xamul li ci biir dama leen wax léegi ne leen ne Kaolack 31 670 ndimbal seetlu leen bu baax limat bi ma leen jox moom leen fi waroon a joxe loolu du lu yomb mu doon loo xam ne koy jox ku ne da nga yëkkati kayit jox ko da nga yëkkati kayit jox ko ba noppi ne ko kay jël si kayit yooye ña ko doon bind mooy waa kuréel bi seen lim taxu koo takku te bëgguma ci woon woo ay wàlliyaan yoo xam ne xaw ma seen jikko te gannaaw liggéeyu tànn la su ma leen jëlee rek ci bëgg def ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yoon te xaw ma seen jikko man nañ ma cee dugalal loo xam ne coow rek la may indil moo tax ñu naan yéex naag yéexut te ca cëppaandaw ga ma mën a waat ne jaar na fa mu war a jaar looloo ma gënaloon ci dugg ci ay parax parax ba ca des dafa am beneen gàllankoor mooy dama wax ne ci daara yi lañ bëggoon di ko defee mooy école yi gannaaw ba ñu waxee ne dañuy aj dellu gañ waroon a dellu ba ñu tàmbali itam ñu jàppaat bëccëg wax ne ci la ñuy doorewaat ma école bi jàngul ndax préfet moo fa nekk di joxe ma war a génnaat foofu dem wuti ay barab yoo xam ne mbir mi dina liggéey te du gàllankoor dellu gi ci daara kon ñu xam ne mbir daal ka nga xam ne moom dafa taxaw ca mbedd ma rek di ko seen lam cay xam ak ka nga xam ne biir ak biti xam na mbir mi ki ci xam mbir mi nag biir ak biti mi ngi wax ne dara yéexu fi bu fekkee ne dañ ko bëggoon def ci kaw sàmmonte ak na leer na jub dara yéexu fi lii lañ waroon a def ngir mu mën a jub mën a leer. préfet Ahmed Tidiane Thiaw barki démb la amaloon ci fànn yu bëri nag ci biir discours am gën caa fës nag di wàllu wér gu yaram ne dina ci def ay jéego fas yéene caa jël ay médecin ci lim gu takko takku kuréel gi ëmb agent communautaire yi ci Kaolack ne ñoom gisuñ ci seen bopp ñaata médecin la nguur gi wax ne dina ko jël Cheikh Tidiane Diagne. nguurub Sénégal dina jël juróomi téeméeru médecin ak junney doomu aadama yu seen xam-xam màcc jëm ci wàll ko wér gu yaram njiitu réew mi moo ko wax ci discours à la bi mu def barki démb fekk na fii ci diwaanu Kaolack juróom-ñetti téeméer ak fukki doomu aadama yoo

gëstu xale yi di leen gestu di leen bàyyi xel bu baax xam ñëpp mënuñoo dugg waaye bu ñuy laal par ndànk-ndànk rek mën nañoo dem ba lim bi gën a wàññeeku su boobaa ñëpp dinañ ci gis seen bopp mais tey li ñuy ñaan daal mooy bu fekkente ne am nañ ci place maanaam acteur de santé communautaire yi moo xam relais bi moo xam ASC bi moo xam bàjjenu gox bi moo xam DSDOM bi ñooñu ñooy agent yi nga xam ne ñooy def promotion de la santé ñooy appuyer système bi su ma sañoon a baax a a na nag luy na parce que actuellement ñëpp dañoo responsable jamono ji métti na commencé màgg ku nekk am itteel daal ñu leen di bàyyi xel bu baax. ci poste de santé yi district yi mbedd mi ñuy ñaax askan wi ak yeneen i liggéey ràññeeku lool ci diwaan bi ñu ngi xamle nag ne jamono ji tembe tembe ay jafe-jafe yu métti la ñuy dund te itam li ci gën a futu seen xol moo di ne ni ñuy jëlee ñenn ñi. boo tëbee tëb rek ñu indi la benn agent affecté la ko bu ñëwee fekk fi moromam boo nga xamante ci liñ ko jëlee moom mu fa toogoon di ko def kooku aussi du neex moo yàqu da ñoo docteur kenn ku nekk bu xamee ay prérogative am xam li mu war a def xam fi mu war a yem rek dëkk bi du réseau des acteurs communautaires de santé nag di xamle ne lim bii nga xamante ne moo di 850 personnes yoo xamante ne ci fànn googe la ñuy yëngatu te liggéeyu ñu dafa yokk ndax daaw ñu ngi ci woon ci 700 ak lu tekk li ko waral moo di ñàkkum xëy mi ka leen jiite nag Cheikh Tidiane Diagne la mu xamle mooy ndaw ñi tàggat nañ leen te am nañ ci xam-xam bëgg nañu métier bi te ña ngay jàppale askan wi te mu ne day kenn ku leen ci jàppale wane nañu itam seen bopp bu baax a baax ci xeexu mbas mi di coronavirus bu ñu sukkandikoo ci moom ba tey Cheikh Tidiane Niang ak Cheikh Tidiane Diagne. instruction yi njiité réew mi wax ci création d' emploi joxe ko au niveau de la décentralisation parce que santé boo koy dégg léegi dañ ak l' acte 3 on a décentralisé la santé avec les compétences transférées comme nag dañ ko transféré au niveau des localités avec les municipalités ak conseils régionaux yi xam nga acteur de santé communautaire daanaka booy motivation ba nga xamante ne ni dañ koy kale ci benn pourcentage boo war a am. day tuuti quoi waaw dafay tuuti demeewut noonu. parce kon dafay mel ne yow liggéey boo koy def amour ak jàppale sa askan moo la ciy dugal mais boo ci xaar koom-koom doo dem poste yi dañuy appuyer ak garde yi di liggéey ak techniciens yi di leen jàppale baax a baax a baax bu dee ñi nga xamante ne nekkuñ ci poste yi tey bu ay campagne amee ñoom ngay gis ñooy sol t yi ñàkk yëpp yooyu ñoom a ñëw nit ki lu mu xamul mënu cee aaru looloo tax le plus souvent ñoom ñooy gën a faral di nekk sur le terrain bi mais dañ leen di nag ak kilifa yi ko ci ministère tutelle wàcc ci région médicale ñëw ba ci district moo koy a a jaar ñoom dinañ jël seen responsabilité ñi nga xam ne ñoo ngànk système bi au niveau des districts et régions ñu leen buñ sañoon ngeen defal ñu lii ak lii jëlal ñu diw ak diw ak diw ak diw su boobaa kenn du am loo ciy wax parce que danañu concerté wu ndax ñoom ñu ngi def li mën pour jàppale ñu suñu kilifa yi encore mi lu ngeen ngi yokk de waaw ñëw nañ ci sa rajo def nañ fa ay émission à maintes reprises nañ ay mini caravane def nañ ay sensibilisation dañu ci koñ yi far nañ ci ak réseau bi 2500 yoo nga xam ne ñoo ko financé suñu fonds propre dem maye ñeneen ñuy sàkk ndimbal mooy mbootaay bu ëmb waxkatu cosaan yi ci Kaolack ñoom ña ngay xam xamle ne yëg nañu mbas mi lool lool lool te gisuñu kenn ku leen ci dimbale waaye nag ña ngay am yaakaar ci koppar yi ñu dégg ne njiitu réew mi Macky Sall génne na ko jagleel leen ko ànd ak yàkkam ci lool ñu dooraat ndaje yi ndax ci la ñuy ninal seen i ay ceeb El Hadj Iba Gallo Seck ma ngay tontu laaju Cheikh Ababacar Dieng. waxuma crise bi laal ñu waaye crise bi def ñu nërmel crise bi def ñoo kurpeñ rey nañu ba ñu dee wéet ndaxte nit koo xam ni saw làmmiñ ngay dund te ci ndaje ngay amee ndaje amatul a ah, di nga sonn te ñun nag trois mois yi nga xam ne def nañ fi confinement beeg yooyu yëpp gisuñu benn ndimbal jotuñu dara rawatina ñun ñi nekk fii Kaolack gaa yi nag ñu ne communicateur ku jóg rek yaakaar ni communicateur nga loolu du communicateur communicateur da ngay am cosaan gi am deret di xam la ngay wax di relier le passé ak le futur yow yaay croix de retransmission tu la le gardien du temple yow yaay ki nga xam ni da nga war a jëmmal jamono ci lu baax parce que ña nekk Ndakaaru dañ leen a miin ci télévision yi xam leen les quarante cinq départements du Sénégal les représentants de l' exécutif mën nañ la ko wax y a des communicateurs traditionnels qui sont man fii Kaolack maa ngi fii ak suma ay nawle yëf yi nag nee nañ Macky Sall am na lu mu dégagé nee nañu dégagé na une somme de cent millions de francs pour les quatorze régions muy quarante cinq départements yi bi ma jotee fan yële Abdoul Aziz mbay waxtaan na ci ak man ñu wax ci mu ne ñoom ñi ngi ciy wax li président de la république daal di joxe ñoom bu soobee yàlla dinañu jokkoo ak ñun luñ ca war a am danañ ko ca war waaw Kaolack ba léegi xamagu leen ko yéen communicateur. ñun xamaguñ ko Kaolack daal fii monsieur le gouverneur de la région de Kaolack jékki woon na fi jox ñu fi ceeb ak ay bagages yoo xam ne boole nañ ko ci fii tamit man toog naa boo xam ne tamit a ah, madame le maire fii jox nañ ma fi saaku vingt cinq kilos waaye ceeb ba baaxut ceeb ba pëndëx la def kenn mënu ko lekk ba pare ñu gal ci ñaari paquet suukar wax ma la ñaari goros de ñaari paquet man de loolu laa jot sama koñ sax ba ñuy bindu ca quartier ya la dugal sama kër aw ma ca voilà teggi nañu yenn mesures yi lu ngeen teggi nañu yenn mesures yi kon na sabar yi jolli xew yi jolli pose première pierre yeeg inauguration yi jolli ndax ñu am fu ñu amee dara ak meeting yi nda ci ndaje laay amee tànka ndaje yi commencé gul yëgaguma ni confinement bi jeex na covid 19 ak ñoom seen ndaje yi fa laay amee première pierre inauguration ak ñoom seen ak meeting bu amul du ma am jëskaay téyel ñu ñaata naag booba ba léegi dégguma ñaata salaire u mairie bi xam nga ni sida la salaire insuffisant difficilement acquis El Hadj Iba Gallo Seck fukki fan ak ñeent ci weer ak mars ba la ñu génn ndongo yee jàngee ca daara yu kawe yi dañoo ñibbi woon seeni i kër ñeel mbas mi di coronavirus waaye nag ña nga doon topp xabaar yi ba xam tolluwaay bi ñetti weer ci gannaaw nag coppite daal na ci am lijjanteetuñu ko cëraluñu lenn ci tegteel yi ak fi feebar bi toll soxna Ndeye Fatou Cissé daje na ak kenn ci ñoom. fan yi waa université ñoo ñu ubbi woon campus bi pour ñi nga xam ne dañoo bàyyi woon seeni bagage ñu ñëw ñu ko bi ñuy jógee université di ñëw dañoo tiitoon léegi moom xale bu jigéen bile ab étudiante la mi ngi ci ñaareelu atam ca département biologie ca fac science ak technique ba ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñu séq ak moom waxtaan mu ñuy dénk ni la mu doon yëkk ci feebar bile di coronavirus soppeeku na léegi uteeg lool bésub fukki fan ñeent ci weeru mars ba njiitu réew mi ci ab déclaration doon na xam ne tëjub l'école yeeg université yi diirub ñetti semaine. daf ñu fekkoon ci classe ñuy jàng après si lañ gis ñi seen parents yi di leen woo ñi génn ñëw naan makit dafa tëj université yi affaire yooyu dañu tiitoon daal xamuñoon exactement lan la ñu dem campus fekk gars yi ñi génn seen valise yi ñu tiit daal dañu foogoon ne sax dakum daal rek nga dee moo tax président gaaw tëj université et tey la wàllu gën a aay waaye nag ndaw lu jigéen loolee ne donte ni sax feebar bi mu ngi fi ba léegi si lee bay jur ay bakkan yu rot nañu ko doon na toppee ca njëlbeen ga kon bàyyi nañu ko bu yàgg te ci noonu mbirum xayma gi daanaka sax yitteelatu leen na. dañ si intéressé woon dañ doon bëgg xam chaque jour fan lañ toll ñaata kaa lañ am parce que boobu amaguñu woon sax ay moor mais dañ doon xool yan région la laal topp télé connecté wu abonné si page ministère de la santé pour am information yi à ngay sax doo xam sax tey ñaata cas la ñu am malgré que ñoo ngi sàmm mesures yi et tout mais nuroowut ak avant daal. lu jëm nag ci seen njàng ñoom ñi nekk ci université yii am na ay jéego yu ñu leen ca xamal la. dañu waxoon dem leen ngeen toog pour trois semaines ñu ñëw léegi nag mois de septembre lañu wax mais néanmoins ñoo ñu proposé ay cours en ligne am na yenn faculté yu commencé. si si parce que bu ministre de l' enseignement supérieur génnee mu wax après dañoo waxoon que dañu commencé cours en ligne après amicale yi ñoom ñoo génn ñu wax ko arrangé wul ñëpp kon duñ ko def ñoo bañoon loolu moo tax ba tey commencé buñ cours en ligne arrangé wul ñëpp moom parce que am na ñoo xamante ni fu ñu nekk amul sax courant bay am connexion. di sol masque fonk lool raxas loxo di sore yoo coronavirus donte ni ñu bari ci askan wi rawatina ndaw ñi fa ñu ko tegoon teggi nañu ko fa xeex bi tey la war a gën a tar ngir dakkal kon wàllante gi balaa feebar bu ni mel di gën askan wi. gisee bàyyandiku googee nag tey jii la wàllu gën a ay ndax couvre-feu beeg état d'urgence bi yëkkati nañ ko ci ndigalam moom njiitu réew mi Macky Sall ñenn ci askanu Kaolack andi nañ ci seen gis-gis bu ñee ne d'accorduñ ci ñetta des ñoom mbégte mu rëy lañ ci am Cheikh Tidiane Sarr ab mbégte ngay gis seen kanam ñu bari ci askan wi gannaaw bi nga xam ne njiitu réew mi jël na ab dogal ngir yëkkati li ñuy wax état d'urgence ak couvre-feu ñu bëri nag ci askan wi nga xam ne daje nañu ak ñoom fii ci diwaanu Kaolack nag ñu ne yàkkamti woon nañ dégg dogal bu nu mel. Babacar Sall a passé. ah d'accord naa ci couvre-feu bi nga xamante nii dindi nañ ko parce que am na lu bëri loo xamante ni baare woon na ko te dafa dem ba benn instant amul benn njëriñ yaakaar naa ne ci nit ñi parce que fu mu ne indi ko su ko defee Sénégal yi nga xamante ni tey jii nii ñoom ñoo fi nekk ñëpp jël seen matuwaay ci loolu waaw parce que instant ñu toll ni moom ku ci nekk yaa mun a aar sa bopp parce que président li ko waroon yëpp yaakaar naa def na ko wante nag ak dogal boobu nag faw ñu respecté li nga xam ne moo di mesure barrières yi maanaam tegtal yi nga xam ne kër docteur jël nañ ko ngir gën a mën a fàggandiku waat bu baax a baax ci feebar bi di gis-gisu citoyen bi ñuy wax Abdoulaye Sénégalais nañ tënku si président la république digle maanaam ñu observer les mesures barrières distanciation sociale di sol masque yi si bërëb bi nga xam ne nit ñi dañ fay dajaloo réunion yu mag a mag a mag yi aussi ñu moytu ko à part réunion yu xaw a yem yi ci waxtu bi nga xam ne feebar baa ngi gën di law ci biir dëkk bi naka noonu tamit cas communautaire yi gën di bëri lool ba tax soxna si ñuy wax maa mu ne d'accordul benn yoon ci dogal bi nga xam ne njiitu réew mi jël na ko man damay liggéey ci santé moo tax man wax dëgg yàlla lever état d'urgence bi man d'accorduma ci parce feebar bi mu ngi ci biir dëkk bi xëy na am na ñoo xam ne xam na ña feebar bi mu ci biir dëkk bi am pagaay ñu bëri nag ci askan wi bu dee am na ñoo xam ne mbégte la ñu am yàkkamti woon dogal bu nu mel ña sa des ne jamono ji ci njaxare la ñu nekk bu taratar Cheikh Tidiane Sarr dañuy wey di di seg sa micro ci mbedd mi wéy di waxtaan ak askan wi ñu andi ñu seen xalaat yi wutee lool en tant que citoyen habitant la ville de Kaolack ni ma ko gisee sa dëgg-dëgg mooy rafetlu ko rafetlu ko parce que vraiment économie mu ngi commencé woon di fatt donc il faut que ñu xaw ko yolomal tuuti ni ñu mën a delluwaat liggéey donc heure de travail ñu delluwaat ko fa nekkoon ni ñu mën a liggéey ensuite tabaski bi mu ngi ñëw il faut tey di ñaw il faut nañu uti tabaski il faut nañu uti xar lijjanti donc le président n'a fait suivre nest pas bëgg-bëgg peuple bi waaw moi je m'appelle Abdoulaye Diallo je suis le responsable de l'UJTL couvre-feu bi du ma ne couvre dama ne état d'urgence bi président Macky Sall bi mooy ñeenteelu yoonam mu yëkkati kàddoom wax askanu Sénégal waaye ci ñeenteelu yoon bi dafa wane ne lajj na bii nag Macky Sall dafa accordé virus bi carte de séjour ak visa de séjour moom mi nga xamante ne moom moo war a protéger les personnes et leurs moom moo war a assurer suñ protection moo ñu war a aar moo ñu war a sàmm président Macky Sall wan na Sénégalais yi mënu ma leen sàmm exposé na les préfets et a baax a baax parce que situation moo tolloon foofu. ngeen téye kontaan ngeen. waaw kontaan nañ trop kontaan nañ ñu liggéey ba yenn ñu mën a libérer ñaw yi si en bonne heure. te Mbaye Ndiaye. Euh, sant loolu moo ñu gënal ndax ñu mun a am dara. waaw dëkk bi moo demee noonu dañoo war a liggéey am dara ñun jakarta maan lañ ay borom kër lañ fii ñi fi nekk ñëpp ay borom kër lañ. wax yi nit ñi dafa sonn Macky deful lii Macky yi ngi nii problème bi loolu la de mais vraiment ñu continuer woon ko ah te yoon yooni Ndakaaru bi ak yooni Touba ak yooni Thiès bi suñ ko defoon rek jàmm am quoi Babacar Loum photographe labo Imam Assane gi a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1 ab toogaanu ñaxtu la ñu amaloon ñoom soxna yee yeewoo ca Kanda ngir rek fësal seen ak mer ci seen mer ba nga xam ne rek jéemu leen ci seen ab gox boole kook di leen jaay doole ñàkk tax rek ñu fas yéene bootu ci gannaaw Mohamed Sadji ba nga xam ne saa ñu jaaxlee moom képp la gis a Dia yore seen kàddu mi ngi ci micro Cheikh Ababacar Dieng gis nga sareeti Caritas yi sax man mii nga xam ne présidente groupement laa maanaam bañ ma yëg ca daal di ko lijjën moo tax man boole ma ci waa ruq bii amul kenn ku ñu jël mbalitam xam nga yëf yi fu mu yem ca loo xam ne amalu leen njariñ ñu wooñu suñu joxee loo xam ne amal na leen njariñ guddi la ñuy dox ndax danoo lëndëm xam nga boo lëndëmee guddi ngay dox ñun waa Kanda danoo sonn tay ci ñi fi nekk nee naa la feebaru cancer lañu man maa ko wax man awa ñaar fukki at am nañ ko fi mënumaa génn muy maire bi nga xam ne am na fi ñaari mandat bunoo génn teg sa bii ni lii moo ko fi def gisuma ko de yoon wi nga xam ne ñu nga xam ne sama kër mës ndox mi fii la ma yeggoon sama wóom sama kër a ngi nii amuñu financement fii financement bañ ñu doon jox dagg nanu woowatuñu benn groupement ba ñu faloo ba léegi benn groupement dematul commune bu kawoon ñu di la kaay réunion amul xamandu la tun leen dara ñi ñu wax di jaay doole la ñu yoree Kanda nu nag kenn lan fi gis koo xam ne noo ngi woo ñi dëkk ci département bu Kaolack bi yëpp département bi laal waxuma la commune bi nañu ñëw jàppale sinu ngir yàlla yonent bi ndax askanu Kanda ak Fodé Baye torox nañu gàddal nañu ak ñi ñu jiite benn doomi aadama laa gis mu diñ fi jàppale muy moo amit sas du fi keneen fii bi nga xamee ni fii fees na del moom moo wokas ay tànkam dafa dem liggéey jabaram woo ko téléphone politique bu ñëw fi taxaw fi teg fi tànkam nit nag buy def te amul ku ko jàppale ñamuy dimbali taxaw ci seen wet ñooñu ñoo war a yuuxu wàllu ndax borom doombay tànk yi dëkk ci commune bu Kaolack bii ñëw dimbali si ko ndax sonn na ndax ab salaire la yaakaar bokk ko waakaa ndax ñii nga ñii toog kenn du ma ko nëbb moom Mohamed Sadji nag ma nga ñëwaat ci lu waral mu den jàppale ak lu tax mu taamu Kanda ànd ak samp ndëndëm ca mairie ba Mohamed Sadji ak Cheikh Ababacar waaw soxna Kandaay man maa leen di jàppale ndax dama nekk ak ñoom gis ay jafe-jafe yu bëri yu ñuy dund ci wàllu mbënn mi ci wàllu feebar bi ñu nekkee am na yu bëri yoo xam ne jàppale laa leen ci ndaxte ñoom dama ñëw seetlu ne dañ leen bàyyee seen bopp ki fi nekk kilifa gi di maire amul lenn lu muy def pour jàppale leen ci ñu nekkee ma ñëw nag nekk seen dëkkandoo nekk ci commune Kahone te bëgg commune Kahone avancé ma gis ay jigéen nga am ne jigéen toll na foo xam ne tey ci jamono loo ko jàppale rek war ko xeeb ma ñëw di leen di jàppale ci jaf jafe yi ñuy dund jafe-jafe yi nag dafa bëri soo ko limee fii la ñuy fanaan d'abord ci seen jafe-jafe yi ñuy dund ci biir kër yi li ci jiitu mooy seen dëkkuwaay gis nañ ne fii dëkkuwaay Kanda soo xoolee ci booru tan ba soo demee def foofu visit sa yaram day daw ci yooyu dinaa leen ciy jàppale ndax daaw sax am na mbënn mi fi amoon génne woon naa ci ay dund ceeb saaboo yu mel noonu jox leen ci wàllu eau de javel ak masque yi ci wàllu feebar bi lépp defal naa leen ko moo tax euh, ni ma ñëwee gis leen ci seen i mbootaay doon nañ ay jàmbaar doon nañ ay liggéeykat ku leen jàppale ñu dem ndaxte ñoom bëgguñu ku leen di ñëw rek di leen di jox xaalis seen dépense kër waaye li ñu bëgg mooy nga leen ci li ñuy yëngu mooy ci wàllu commerce ci wàllu GIE ku leen ci jàppale dañuy dem ci loolu laa daa leen di jàppale en général waaw man damay politique ndaxte commune bi dama gis ne commune bi nu muy doxee développement bi waroon am ak yokkute bi nga xamante ne waroon nañ ko gis ci commune ko woon man moom laa ci gisut ndaxte ñi tële xëy na am nañ yéene bi mais matale wuñu waaye dañoo tële ma gis nag ay faay yu bëri yoo xam ne tey man am naa ci ay solution ci domaine yu bëri ñëw bëgg ci apporter sama contribution pour ñu développer commune Kahone ndax commune Kahone dafa dellu ginnaaw commune Kahone ak histoire bi mu am ak fii mu tollu gàcce la ci doomu Kahone mu ñëw xool gis commune am toll nii mu toll dañuy bàyyi commune ko woon dem ci région bu Kaffrine urbanisme ñu bari di ko dégg te xamuñu ko wala bokk buñ ko xamee xamuñu luy njëriñam ba ñu soppee Kaffrine def ko muy région urbanisme nag daal dina fay samp ana kañ lañu ñu soppi Kaffrine def ko région ak fan la yaatuwaay bi toll Mouhamed Wilane. Kaffrine ñu ko soppi def ko région ci atum 2008 yaatuwaayam toll ci fukki junne ak benn yu ak juróom fukk ak benn ci ay kilomètres carrés loolu buñ ko xayma ci yaatuwaayu Sénégal juróom yu toftal juróom benn ci téeméer boo jël ci yaatuwaayu réew mi li ñuy dippee urbanisme nag mu ngi fii ci région bu Kaffrine ngir gënal yombal askan bi ci seeni dëkkuwaay xam xamle lu nu wel di ma xujataal di njiital service urbanisme ci Kaffrine waaw urbanisme nag moom njëriñam ci région moom mooy saytu njëriñam moo jur daal dañuy ne moom mooy baasu lépp mooy laytaay parce que fi mu ne nii boo urbanisé wul daanaka doo dem fenn chinois yi sax dañu wax ne ñoom boo urbanisé sax réglé waale nga problème santé problème environnementaux yëpp parce que urbanisation éclairé en fait su mbedd yaatoo set éclairé am ngelaw nit ñi mun nga jàpp ne duñ gaaw a feebar donc ñoom noonu lañ koy gisee moo tax ñoom boo demee foofu planification intégrale la ñuy wax dañu ne mooy base lépp maanaam boo planifier urbaniser rek réglé nga yëpp donc nag ci biir loolu daf ci am nag ay parties yoo xam ne partie aménagement mooy nga ne fii nañ fi def lii fii nañ fi def lii ci loolu la wax ne nañu def euh, pôle six kilos ci loolu la ñu wax ne nañ def serre mooy planification stratégique ci ay at yu yàgg nag urbanisme mu ngi Kaffrine waaye askan wi ñu bari xamuñu njëriñam léegi nag nit ñi dese nañ ko xam ba léegi ndax ñun conseil lañ ñun ñun ñun réprimer wuñ man fu ma convoqué nit bu ñëwee dama ko ne convocation bi prétexte la rek pour ma mën la gunge mais su ma la woowul du ma a gunge moo tax chaque altine dañuy wër di sillonné pour xool ñiy tabax bu ñu see ko tax ñu convoqué ko dama leen dox toujours dama leen di rassuré man convoqué wu la pour réprimander la bien que li nga def dafa xaw a illégal mais comme ñun région bu bees ngeen lii dafa bees ci dañ lay convoqué pour boo ñëwee ñu mun la teg si yoon bi gunge la ba nga am kayit ba tabax bi mën a ñëw parce que ki néew doole buy tabax tabax bi dañu war a sécuriser bu néewee doole pare di tabax ñu koy toj xam nga loolu bu yàggee baaxul ci réew nit ñi daal war nañ ñun nag suñ porte yi c'est ku ñëw daañu la daan la digal daan ànd ak yow bi nga bi ngeen di ñëw ni maa ngoon terrain bi dem di saytu ay kër pour accompagner leen ak ñu am këyit ñu tabax fekk tabax bi tegu ci siraatal bu ñu sukkandikoo ci ma xujataal di ñu xamal jamono ji région bu Kaffrine mu ngi ci ay tànk yu baax baax yu jëm ci li ñu dippee urbanisation ñu bàyyi beneen région Mohamed Wilane dem ci diwaanu boobule chauffeur ya ca diwaan ba nag ña ngay sàkku ci kilifa yi ngir ñu defalal leen tali yi laata nawet gi di takarnas yi ndax seen oto yëpp yàqu nañu te dara yàqu ko lu may ay tali yu bon ñu yàggu ko jooy ci lool Bara Diop ñu dëgmal nawet nemmeeku ay yàqu-yàqu yu bëri yi nekk file ci tali yi nekk ci diwaanu Ndar Géej lu nu mel nag jural ay jafe-jafe yu tar ñu yore daamar file ci diwaan bi tax na sëfoor si yëkkati ci seen kàddu. ak tali yi organes yaa ngi yàqu. Bougouma Samb nekk délégué syndical bokk ci li l'union des routiers otonom du Sénégal mu xamle ne lu ko dalee stade Médine wala sax 15 bi jëm Angaltal foofu la yàqu na yàqu gu bër. tali yi yàgg nañ ci wax stade Médine leen jëkkoon di wax beneen bi boo jaaree 15 mètres bi génne boor Angaltal wax si rajo bi commencé na def chantier yi waaye àggul chantier yi na àgg balaa nawet bi di ñëw tey ji kenn amul foo jaar sëfooru taxi yi noppi ci yëf yi Dame Diagne nekk njiital amicaalu sëfooru taxi yi nekk fële ci diwaanu Ndar géej boobu léegi daw organe ndax boo demee Pikine chantier yi bari na fa koñ bu dugg doo dem travaux yi benn àggu ci looloo tax ñuy ñaan ndimbal ci autorité yi ngir ñu jéem leen a defaralaatal yoon yi laataa ndox di laal suuf ci yi daal ñu jàppale ñu parce que nit bii fay devoir am war a mooy ñu defar ñu tali yi bu baax diggante Koumba Dieng boobu ba lew na ba maam rawaan yëpp yàqu na te buñ sañoon nag municipal bi defal ko parce que tamit moo gën ñu dem ci ay coow ko looloo parce que kàmb ndaw yi su nawet bi ñëwee dañuy gasu ba nekk ay kàmb yu mag a xam ni waxuma sax dañuy indi peut ay xëccoo mais mën na provoquer ay accident ay désagréments yenn oto yi yàq seen ay pneu yi yàq seen ay organes alxuraan yi ay rituel ak yeneen ak yeneen jamono jile askanu diwaanu Ndar Géej rawatina ñuy dugg woto ko borom woto yi ay jafe-jafe yu tar moom la ñu jànkuwanteel la Bara Diop ci yoon yu bon yooyu sax nag la ñuy jaaree réew mu Gambie foofu nag jëwrin ba ñu dénkoon lépp lu jëm ci wàllu dëkkuwaay ak lépp la ca aju moom nag daal dinay tekki ndombol tànkam moom Aboubacar Tambédou kaka fa wut nag ma ngay wuyoo ci tuuru Dawda Diallo loole nag daal jur coow lu rëy ca réew ma ne ana moo tax mu tekki ndombo tànkam waaye itam lan moo tax njiitu réew ma aadama Barrow ànd ci ak moom a Lamine seen tey nag Gambie lu fi gën a fës moo di ne mu ngi woon ci buntam jëwrin yi moom nag tuddam mu ngi óoyu ci kii di bi nga xam ne moom leen dénkoon wàllum luwaay fii ci réewu Gambie waaye moom nag dafa toog rek jébbale ay lengeem wax ne góogale toogu moom nag daf koy bàyyi ba Tambedou nag ba mu bàyyee góogale toogu am na ñu ci bëri nag ñu ngi ko doon ŋaw ci ŋawte fii ci mim réew ndaxte eh, nit ñu ci bëri nañ ko gisee ne ba Tambedou nu mu bàyyee góogale toogu dafa nekk ci jamono bi nga xam ne mu ngi nekk xat xat-xat mi Adama Barrow ndaxte am na liggéey bëri yoo xam ne kii di Bah Tambadou moom la mu ngi pour gis ne moom war na koy ndar keppal lu ci mel ni CRC CRC boo ko liggéey mooy kuréel gi nga xam ne ñoom leen sas pour gis ne ñoom nag ñooy nafaraat lii di baat réew mu ees fii ci mim réew muy réewu Gambie waaye wax ne google mbir gaay ndar keppalu guñ ko waaye fu mu nekk nii moom Aboubacar Tambadou dafa jébbal lii di ay lengeem ne moom nag dafay bàyyi boobule place fu mu nekk nii ki nga xam ne moom leen tabbu koo xam ne moo ko ut ci google place moom turam mu ngi ut kii moom moo ci boobu place moom nag fu mu nekk nii moo nekk jëwriñ bi gàlloo wàllum uh, bunt ak uh, lii di uh, loi fii ci réewu Gambie ba tamit nag ba mu génnee google place mu ci bëri nag ñu ngi ko doon ŋàññi ne nag moom nu mu toogee génne lii di place boobu rek dafa nekk loo xam ne dafa ñaaw te kii di président Adama Barrow njiitali réewu Gambie waru ko ko doon nangul mu bàyyi noonu rek google place te amul yenn firnde yoo xam ne wér na te wóor yoo xam ne dees na ci mën a sukkandiku pour gis ne lii ak lii moo waral moom mu bàyyi google place waaye waaye nag euh, fu mu nekk nii li nga xam ne moo tax mu bàyyi google place ñu ne moom nag dañ am ñaaw njot ne dafa am liggéey foofu noonu ci wax ne di UN mooy mbootaay tuggal wala mbootaay àdduna wéndal képp li mu waral moom nag ñaari liggéey di ko mën a boole fu mu nekk nag UN dañ koy waaj jël pour gis ne moom mi mooy nekk seen assistant secrétaire bi maanaam ki nga xam ne moom leen toftal ci ku leen di mooy mbootaay àdduna wéndal képp li mu waral moom nag mu jébale euh, yooyu leen lengeen ku doon ko ngeen fii ci euh, Gambie moom Lamine Sène pour rajo Alfayda yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1 ñaar fukki simili ak juróom-ñeent moo bootu ci gannaaw juróom-ñeenti waxtu ca lycée Valdiodio Ndiaye lycée euh, technique euh, El Hadji Abdoulaye Niass gannaaw ba ñu daloo seen gànnuwaay ya leen kuréel bu ëmb ndongo ya fa doon jàngee sampal inspecteur bu enseignement technique ca iya bu Kaolack moom mag leen di ñaax ngir ñu sàmm ko ngir rek sawarloo ñi nga xam ne ñoo leen ko fa defal Amadou Fall ak Noa Biaye liñ ciy xaar dana nekk loo xamante ni vraiment lu rëy loo xamante ni mën na andi développement école bi lu mel loo xamante ni moom mooy tax école bi développé moom mooy tax bi jëm kanam ñaax élèves yi nga xamante ni ñoom ñooy les principal bénéficiaires ngeen sàmm li nga xamante ni moom lañ leen fi defal tey parce que ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen ko defal bis bu ñu fi ñëwaatee gis mu ni am na entretien comme ni mu ko waree ñoom dañuy gën a sawar ci li nga xamante ni moom lañu fiy def donc maa ngi leen di ñaax ngeen gën a sàmm loolu ngeen xam ne lii day soog a commencé rek te fa muy aboutir dana nekk loo xamante ni vraiment bénéfice lay mus a nekk ci yéen te bi ñëpp xam nañ ni mi gën a màgg mi ngi am côté formation professionnelle mi ngi am am na BTS am na ay BT ñoo xamante ni dañuy génn dañu war a insérer wu dans le circuit donc ñooñu noonu mën nañ leen a faciliter tâche yoo xamante ni moom moo leen di xaar. xabaar yi bitim réew. jukkiim xabaaru bitim réew yi soxna Gone Njaay kan lañ ci àndala na fan lañ koy dooree day xat yi gannaaw ba ma la nuyoo ba noppi nag jukkiim xabaar yi bitim réew yi tey dañu koy dooree ci Chine foofee nag kilifa yi gannaaw toogaay bu yàgg rek bu ñu toogoon di xaar seen ko tontu commission militaire centrale ba nga xam ne nag moo nekk ca Chine daal di nay joxe kàddoom jëmee rek ci daal di nangu nag ngir ñu daal di tàmbali amal ab ñàkk ci ñi nga xamante ne rek ñoo di ca militaire ya vaccin boobee nga xamee ne nag nday xat yi la ko tax a mooy rek daal ak mbas mi di coronavirus di wax ne nag ñi ko defar mooy institut de recherche ak it nag ab compagnie pharmaceutique bu fekk baax ca googule réew gannaaw nag ay gëstuwaay tamit ak ak sa gaay yàgg ngir nag daal di ceemal liggéey bu mucc ayib. xabaar yi bitim réew. jukkim xabaar yi bitim réew yi ñu daal di wéyandi daal di dem ci États-Unis daal di fay waxtaane wàllum yoon ka nga xamee ne nag moom la ñu tuddee woon le tueur de Golden State doon wuyoo ci Joseph James De Angelo moom nag moo nekk defatu njombe ba gënoon a rëy ci euh, réew ma ci atam 1970 jàpp 1980 ndax nag tuumaal nañu ko ne ci at yooyee faat na fa lu toll ci fukk ak ñett ci ay fukk mu violé leen ñi seen kanamu jëkkër ña ca des ci seen kanamu euh, doom waaye tamit bokk na ci la koy toppee wàllum enlèvement maanaam daal sàcc nit ki ne bu ko ay mbokkam moom nag jamono ji atem ba ma ngay woy ci tribunal bu Sacramento waaye nag li ci gën am solo mooy ne ci atam ba ñu ko jàppee ba tey jii daal dafa weddi woon ne tuuma yooyee ñu ngàll ci ndoddam ah, defu ko waaye nag jamono ji ah, ma nga tàmbalee nangu ndànk-ndànk di wax ne itamit loolee nag ñu koy tuumaal am na lu mu ci def waaye am na lu mu ci bàyyi àttekat ya nag ñoom jàpp ne daal la muy wax dafa tax suuf waaye lépp rek moo ko daal di def fa ndax nag defatu ñaawteef bu mag a mag la woon ba tax na rek ña ngay sàkku ngir nag ñu daal di koy daan giir ak dundam. xabaar yi bitim réew. ci wàllum yoon foofee nag yoon daal dinay euh, féexal ki nga xamante ne rek moo di maye saya taban nga xam ne nag moo nekkoon rek ñaareelu jërin bu njëkk ba doon wuyoo ci Thomas taban moom nag doonu ko tuumaal ne daal moom moo faat ki nga xamante ne rek moo di aawam di wujjëm lu ni mel nag ñu ngi wax ne daal mu ngi ko def ci atam 2017 waaye moom nag gannaaw càkku càkkuteef ga mu defoon ca kanamu àttekat ya daal ñu ko koy nangul muy nag bàyyi ko rek bàyyi ndi goo xamee ne nag day tënku ci ay condition joxe fukki euh, junni ci euh, maloti waaye tamit naka doy ca ndax nag ñaari ay bés yu nekk yi tamit war nay dem ca police rek ñu gis ko xam ne yi tamit demul euh, dikkul te yi tamit nag bu ko naree def foog mu am ca ndigal ànd ak li tamit nag dañu ko tere mu jëflante wa ilaa mu gisanteeg ñenn ci ñi nga xam ne nag ñooy seede ya ca googule mbir moom nag madame Tabane Momy ñi ngi ko jàppoon rek ñetti fan ci weer juin gi ñu nekk tëjoon ko ca prison centrale ba ca xabaar yi bitim réew. Euh, Ndeye Khady li moo gënoon a fës tey jëlee ci jukkim xabaar yi euh, biti réew yi euh, mbokk yi jàngeen jëfati xabaaru tàggat yaram Serigne Moussa sàkkat maa ngi lay nuyu. Ndeye Khady maa ngi lay fay tey nuyu mbokku auditeurs yi ñu sóobu ci xibaaru tàggat yaram yi dañu koy dooree ak réunion comité exécutif bu confédération africaine bu football bi ñu amaloon démb ci visio conférence nag ndogal yi ñu jël nag bokk na ci CAN 2021 dañu ko toxal kem euro 2020 ak Copa America ginnaaw bi nga xamante ne nag pàcc yi waxtaan nañu ba déggoo li nga xamante ne nag moo xew ci àdduna bi nag CAN 2021 bi waroon a am ci réewum Cameroun dañu ko toxal ba janvier atum 2020 2022 beneen dogal nag bu ñu jël bokkoon na ci li nga xam ni moo jëm ci wàllum CHAN di tournoi bi nga xam te dañ koy amal fii ci Afrique tournoi boobu nag mooy dañ ko mujj dàqandi ba janvier atum 2021 CAF ba léegi dal na beneen dogal daal di annulé li nga xam te ni moom mooy li jëm ci kaan ci wàllum jigéen ñi ci atum 2020 daf ko dàqandi sax utal ko beneen tour di Ligue des champions féminines africaines ci atum 2021 gi ginnaaw gi nag jëlaat nañ beneen dogal di édition 2020 bu CAF Awards bi nga xamante ni dafay neexal bi gën a xarañ fii ci Afrique nag dañu ko mujj annulé ñu dégg ci rek ne Sadio Mané kenn du ko utu confédération africaine bu football ba léegi joxe na ci gafakaam lu toll ci fukki millions ak juróom-benn yu toftal ñaari millions de dollars yoo xamante daf koy dimbale ñi nga xamante ni ñoom ñooy association membre yi bokk ci moom ginnaaw bi nga xamante mbas mi Covid mi ngi wéy di lëmbee ba léegi association bu nekk nag dina jot ci lu toll ci koppar ci cent de francs juróom fukki fédération ak ñeent yu aju ci moom daal di leen dolli ay koppar yu toll ci un million de dollars mu jox ko fédération bu nekk Ligue des champions Lisbonne nag moo war a dalal xew-xew bi ni mel ginnaaw bi nga xamante ni nag foofu ca Portugal ña ngay waaj a demaat ci beneen confinement ndax évolution mbas mi di coronavirus final huit bi nag bu Ligue des champions bi ñu jàppoon fukki fan ak ñaar ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août bu ñu sukkandikoo ci këru taskatu xibaar bii di l'équipe nee nañu nag dara ngi xool situation bi fu mu toll nii des fois ñoom nee na amuñu plan B dañuy xool ci situation bi fu mu toll rek ñu def ko ni mu tëddee ñu waxtaanee wàllum football fanweeri bëccëg beeg ñaar Premier League anglaise bu juróomi waxtu jotee tey ji ci Everton mooy dalal waa Leicester Arsenal di dalal waa Norwich boobu lay waxtu Bournemouth di laaleeg Newcastle West Ham di laaleeg Chelsea bu juróom-ñaari waxtu jotee ba teg fukki simili ak juróom fanweeri bëccëg beeg ñett Liga espagnole bu Levante bu juróom-ñetti waxtu jotee Betis Séville di laale ak Villarreal ñaar fukkeelu bëccëg bekk juróom-ñeent Calcio italien Inter Milan mooy laale ak Brescia bu juróomi waxtu jotee ba teg fanweeri simili Bologne di laale ak Cagliari ci boobule waxtu Lecce di laale ak Sampdoria bu juróom-ñaari waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom Spal di laale ak AS Milan Fiorentina di laale ak Sassuolo Hellas Vérone di laale ak Parme assemblée générale ci li nga xam te moom mooy njiitu confédération africaine bu football jàpp nañu ko nag fukki fan ak ñaar ci weeru mars

ci xibaaru tàggat yaram yi jaa ngeen jëf. ñaanal la kenn lu jàmm Serigne Moussa Kane tey jii nag di àllarba benn fan ci weer ak juillet li ñuy waxtaanee seen biir émission tomb bés bi bokk na ci ba tey jii ku mel ne moom suñu moom suñu maam Fatoumata Zahra Bintu Cheikh Ibrahima Niass ci dundam ak jaar-jaaram lan la jigéen ñi mën a roy ci moom ci dégg ndigal topp borom këram waaye itam ràññeeku lool ci jaamu yàlla ci 88 628 97 97 88 628 18 76 13 47 ci kanam tuuti lay doon ñu jëli li ci yéene kaay yi. li ci yéene kaay yi kaay yi. L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf.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 ahlan bikum inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uuna soxna su sell sa wàcc na liggéey taawu Baay ñees ak sayida Faatimatu Zahra Ñas moo génn adduna mi ki altine ca Medina Baay allah l'évidence yi ne kaay ko xamal xamoon na juróom ñeen fukki at ak juróom benn mooy waay bu jigéen ci ki nekk tey imaamu Medina Baay Cheikh Tidiane Ali Cissé nekkit waay bu jigéen ci porte bu Medina Baay Baye Cheikh Mahi Ali Cissé Vox Populi na Medina bàyyi ñi ngi ci naqar ak tiis direct news na ko waxal umma islamique bi Sénégal ba bitim réew ndax fépp njaboot ak Baye Niass jànga fa yéen kaay bi na soxna su sell l'évidence yéen kaay na ko ku teel a mokkal alquran ku xamoon xam-xam jàng ak jàngale jaamu yàlla ci lii la jeexal dundam gi ba tax Moustapha Niass démb ci assemblée nationale fa wax député ya na bala ñoo commencé liggéey nanu ñaanal soxna su màgg ci diine ji as-sayyida Faatumatu Zahra mooy pare nañ ñaanal tamit xalifa général buñ cana ba sekk ak ki yoroon kàddu Tiwaawoon Pape Malick Sy ak imam Tafsir Sakho ñii ñëpp ay kàngam lañ woon ci diina ji ba tey yéene kaay bi nañu Moustapha Niass ak député ya rafetlu nañu doxalinu njiitu réew Macky Sall ci corona bi ba tey yéene kaay bi ne am na ñeneen ñu ko rafetlu mooy mbootaayu maire ya nekk ca Sine saalum téeméer lañ ak fukk ginnaaw buñ taxawalee seen kuréel ga rafetlu nañu ni Macky xeexee corona bi askanu Ndakaaru mel ni ku naan leen hëy bàyyi leen lu neex Macky rek ngeen di ko wax su defee lu bon ngeen rafetlu ko su defee lu baax ngeen yokk ko gii ñëpp xam nañ na Macky fa cee daamu lajji ni mu ko yoree baaxul santul yàlla yéen ngeen di wax lan docteur Saare ci yéen a kaay bi ne man fa mel ni ñetti weer laa ñàkk sama dund gi madame Fall ne Macky tas na sunu yaakaar te mooy yéen a kaay mel ni ku naan leen général bi Macky fa wéer ngàndaay yi ci xeexu corona bi Diouf Sarr na leen tontu du forox ci vox populi mu ne naka la ñuy xeexe wàllu wér gi yaram te amuñ koom-koom askan wi nekk ci jafe-jafe sur du quotidien jox kàddu bi ngay ñaawlu état d'urgence ak couvre-feu bi nga xam ne Macky fa ko fay jëlee ko nee nañu Macky daal xamul sax fu muy taxaw fay làmbatu ndax seetaan na askan wi la soleil yéen kaay mel ni ku leen di tontu ne li ngeen wax nii ak professeur Seydi li mu wax du benn de lu jëm ci wàllu plateau technique hôpital yi rafetlu na jéego yi ci makki dox source ay yéen a kaay ne ma àttee leen ci jamono jooju ngeen di rafetlu ñii di ñaawlu corona bi moom rayaat na yeneen ñeent fi mu toll nii téeméer ak fukk ñaari doomu aadama faat na leen fanweeru doomu aadama ñi nga ci diggante dund a dee xanaa ay werante day jeex vox populi feelu ko na ko bu sell ba tiwaawoon hôpital maam da baax corona ba ma ngi fay def lu dara jarul aa yaw seetal benn saas femmes xam nañ fa corona ak keneen fa ñuy fajee xale ya ak fa soxna yi di muccee fañ koo tëj source ay yéen kaay na ko ma yokkal la ci kaso ga nekk ca Jurbel corona baa nga fay law di fararari benn waay bu am juróom fukki at juróom-ñeent moom la corona dal mu wàll ko fa juróom-ñaar ca ñañu tëj kaso ak seen docteur ba leen di faj da waxoo jàmm l'observateur xëy di ñu xamal ne juróom fukki milliards nguur gi dépensé nañ ko ci faj ñi ga xam ne ñoo am corona ñetti milliards ndampaayu ñiy yi na ko junneey milliards yu corona bi fañ ko jaarale ak lañ ca dépensé bu ñuy jàppee ne fa ñoo pasar pasaree alalu askanu ñoom nguur gi li wax dara ca leerut nee man leeral naa leneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne corona bi tax na Sénégal suñ koom-koom fa nërmeelu kon fi mu toll ni njiitiree Macky Sall fa ñoo foog ne fay wàññi ministre yu bari yi a yaaw seetal ministre yu bëri Macky fale na nar a kaj ji dàq football ca biti yeneen ministères yi mu dajale leen ka daje yu ndeng leer ya mooy jëwriñ ji ñuy wax Abdou Karim Fofana laas yéen a kaay jàmm ngir juboo am seen diggante ak Babacar Ngom Sedima ba ñu wax ne moo ñëw jaay leen doole nangu seen tool ya jëwriñ ji nag lam jàpp mooy juboo mën naa am seen diggante béykat yi na ko xam nga lan mooy tax juboo di am mooy njiit réew Macky Sall dugal loxom ci coow li Babacar Ngom delloo ñu suñ suuf si li rek mën a am jàmm am de nay leer lu leer ba yegg ca nan ñi ja mooy police Sénégal yi ñuy wax naan fa ñuy fitnaal dóor yu métti ci kaw askan wi seen kilifa ga maa ngi leen di defandar jàppal tànk la mu moom libération mooy homme d'affaires bi ñuy wax Big Togo dóorati na marto réewum Sénégal lépp fanweeri milliard ca jam ñaajo fa waxoon na fa fay tabax université waaye ba léegi furaax daal xëddéem tus la fa defut ba pare nax ñu dem ma dem ci wal faji yéen e fekk fa kujjee ci wàllu politique diggante Diouf Sarr ak Cissé Lo yéen bi ne boo mooy tuut yëf nar naa ëpp loxo de nañ ci bañ a wax rek la mu ñu wax moom l'observateur mooy commerçant yu marché Sandaga Ndakaaru fa ñoo bañ ba tëdd ca naaj wa ne duñ jógee ca marché ba naan ñu ngay dem njiit réew mi ndekete yoo fa ñoo xamal dil maanaam xabaara yógoo ndaje fi amal ak jubóog yëkkati loxoog lépp séddoo woon nañ ak ni naroon doxalee réew mi corona bi moo ñëw yàqal leen lii quotidien moo ñu ko xamal tàggat yaram la mu ñu xamal moom stade yéen a kaay mooy ne coupe d' afrique 2021 bi doxal nañ ko ba 2022 barcelone fa jël jaaxaay mook atliko démb ba tax yéen a kaay bi na barça kay fi mu toll nii fori na new championnat bi xaw na yoonu ñàkk ko ah fi mu toll nii mënta dóor kenn ay match nii rek lay teglante équipe bu mag a perte seen crédit bëgg woote réseau bu bon sàcc crédit qualité service bu bon mooy sénégalais yi te kenn tegul leen ko ku mooy kër ak téléphone gi ñuy wax orange ak expresso ak free ba tax info yi ne kaay ne waa ARTP yi ña leen di artu ñu ñu war a artu dëgg ñu bàyyi lu bon li ñuy def mooy ñuy tëddee xale yu jigéen tout tànk yi nga xam ne ay mineur la ñu amuñ fukkaat ak juróom-ñett fañ leen di noggatu aka wannu lolor ñoom xale yu jigéen yooyu nag ku nekk ngay nettali jëf ju ñaaw ko def ci réew mi yéen xaalis lañ leen di naxee ay mille francs cinq mille francs naan bu ko wax sa yaay